ci ñaar fukki examen ak ñeent fukk ak ñeent wax nañ ne fukk ak ñeent ñoo ci positif ci téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci fukk ak ñeent yooyu onze yi cas importé mooy cas bu jóge bitim réew ñëw ñaar yi cas contact la yu ñu doon suivre ci contact yi benn bi nag transmission communautaire la ñu leen di yëgal ne ci ñi ñu doon faj ci Touba am na ñaar ñu ci wër ba tey danañ leen génne ñi ñuy hospitalisé Touba fii ci Dakar ak Ziguinchor ñu leen di yëgal ne ñu ngi am tan bu baax tey fii ci Sénégal bu ñu xaymee man nañu wax ne téeméer ak fukk ak ñeenti cas la ñu positif bu mbir mi commencé ba léegi ci téeméer ak fukk ak juróom ñeent yooyu ñu yëgal leen ne fukk ak benn yi wér nañ bon dëgg mën nañu wax ne téeméer ak juróom ñett ñoom ñoo nekk hospitalisation ba léegi ministère la santé et de l'action sociale mu ngi leen di demander